tippal feneen tippal feneen waaw maa léegi maa léegi nan moo leen fekk maa leen xaalis ñëwal Modou Modou Anta kaay bi Modou Modou Anta mi kaay bi grand combat baa ngi nii pour le 25 novembre Jambel production lañ ci àndal Alioune Seye numéro 2 ak Modou Anta équipe lamb Fana Thiès Moro Thiès Moro booloo ngeen ñëpp maa ngi lay baax a baax di la ziar. maa ngi lay fay Lamine di la ziar bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw ma sant yàlla rek di julli ci yeneen dëkku tedd bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ maam Saloum sëriñ Cheikh Mounda Fall di nuyu tamit xam promoteur di nuyu tamit sama adversaire di nuyu assistance bi yëpp di di gërëm ñëpp yaa di nuyu Boy Jaxaaw rakk di nuyu Youssou Ndour Youssou mbokk ma la nag yaa ngi koy <laughs> waaw donc cinq minutes yi dañ waaw man maa ngi lay ziar daanaka baax na aussi ziar bi seetaan nañu dañ sant yàlla di ko suñu di sant suñu ñaari waa bi di sant suñu sëriñ sëriñ Ba Kër Mbacke mu topp borom Daal Salaam moom daal mu yàgg lool te wér di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaanal képp koo xam ne jullit bi di waat gàmm gi rek yàlla suñu borom defal tawfeex may la bëre poos ba nga jëpp gàmm bi gàmm ko ci jàmm mu jël ci jàmm lépp lu fa waay ñaan rek suñu borom daf koy tawféer def ci biir réew mi nekk jàmm salaam di ziar assistant bi yëpp ñu fi nekk mooy xam ne journaliste yi dañ ci jiital dëgg yàlla taaral nañu di jaajëfal bu si mbaam gàtt koy ziar moom cëccëg. nee nañ ci turam de dafa mel ni yow sa adversaire combat taxaw rek yéen a soog a jàkkaarloo. waaw ñu ngi soog a jàkkaarloo. waaw ñu ngi doon wax ci média yi ñu wax ci média yi loolu moo ñu wax combat moom dafa moom il faut ñu jàpp ko mais lépp ànd ak respect ànd ak dal rek. moo gisee Alioune Seye. lu ma gisee. Alioune Seye maa ngi koy gis nii. waaye mu ngi ci jàmm bu baax am naa ci yaakaar naa ne maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. di ñaan rek le vingt cinq incha allah di yàgg ci jàmm. fan nga toll pare naa làmb ji bu doon léegi sànq naa ko ci biir wax naa ko bu ñu duggoon léegi ma defal la affaire bi génn. bon su ko neexee doon génn. porte baa ngi dañuy ubbi rek CNG graw ñu dugg ci biir léegi ma defal ko affaire. bu ma neexee baat jënd sax maa ngi tudd ci kàddu yooyu ko mën a yóbbu ñu sa bopp gën a gaaw. le vingt moo mën a moo mën a su duggee mu daan naan loolu la vingt-cinq lay nekk ci kàpp ne yaa ngi dégg dana ma am nga combat mu ne ko bu ñu duggee ci biir léegi ma daan la loolu moo fi indiwaat wax ji wax ji yëpp xëy na mënut a ñàkk contrat bi mooy kii day wax pour taaroo bis bi pour jaay bis bi nga xamante ni suñu amateurs yeeg xam nga suñu supporters yi préparé ko mais le 25 moo am solo incha allah yal na yàlla ci yóbbu jàmm mais ñu kàttan ak wér mais ci ndam ci kàttan. mais loolu yaakaar ko boobu ba ñu doon suñu diggante ci enceinte bi léegi mu daal. non moom loolu moom la concerné moom loolu moom loolu la concerné moom la loolu la yaakaar mais wallaahi lazim bu mu yaakaar benn yaakaar naa téeméer baa xaw ma sax di wax mais xam nga mënut a ñaan il faut ñu wax pour jaay combat bi. yow loolu yaakaar rek lan nga yaakaar. laa fii daa baax rek. di wax ni xam sax may wax ci moom mais mën naa sax ba nga wax ci moom moom li jëntiw ma ko sax xam a lan sëg contrat te tey dañ fee ñëw pour wax da wax yaa ngay dégg comme nag loolu la gis nan bàyyi ba la vingt cinq nan bàyyi ba la ngeen bàyyi li non comme wax wax ñaar a koy def comme jàpp na ne xam nga li ma lay expliquer wax bi day bëgg a bari te moom mënewul wax man mënewul ma wax nan bàyyi ba la vingt waaw kay. ah mais foofu ngeen waxante ne. àdduna xam nañ ne man jëf laa gën a mën a. wax ji mënut a ñàkk mu ngi moo tax ñuy wax li ñuy wax nii xam nga mënuñoo wax lu ëpp quoi. ndax xanaa moom daa yóbbu sa nga ñëw. non yóbbu sama fit man bu yàlla taxaw sama kanam di yóbbu sama fit yéen ñii seetaan làmb yàgg seetaan làmb seetaan mi xam na loolu fadam bi xam na loolu man du ma dawal góor du ma ragal góor wallaay daa sim lépp dañ bàyyi le 25 rek incha allah nañu yónni yàgg yàggatul ci kàttanu yàlla nooy bañ ma agsi bu ko woon rek dal dala vingt cinq ñu ma yàggatul yaa may dégg man aw ma lu may tiit aw ma lu may calculer barke maam Seera Fall laa la giñaan moom mii moo la gën a xam ne am na combat hmm. lu leer te wóor laa lay wax lamb ji nag daa la xamal benn affaire de ah non man baax loolu wax ju yàqu la su taxee fii naan am naa combat loolu wax ju yàqu la moom ni ma xamee ne man am naa combat moom noonu la xamee ne am naa combat lamb ji moom moo jaay boppam comme li kii wax léegi rek jarul sax ñuy ne fii di ay kii ak kër lamb bi ku dégg Mourou Anta ak Alioune Seye taxaw na wallaahi lazim foo nekkoon di nga dagg bee ñëw. lamb moo jaay boobu li nga gis bëri li nga gis xeex loolu foofu foofu la te am ci lamb bi day am bëri day am xeex. ci xeex yàlla. te kii day bokk ci ñuy tàllal. su fekkee dinaa ko duma ba romb may xeex comme paas bi. loolu loolu dina yomb kii day tàllal ba xëy na sax sama début fekk seetaanu ko quoi non mais ñi xam sama début carrière depuis Thiès laa lay ba Ndakaar wallaahi asim bu suma dóor man ma ma taw Lamine man traite góor laa man da bañkat laa damay bañ ba keroog may sàngoo man góor duma yàq ba di ma duma kii bu taxawee ni damay duma day wax nii rek pour neexal jaay combat bi ak ay supporteram mais maag Alioune Seye kii kii rek kii fan la mën a jaar pour du man nii. ci ren du xeex du bëree. moom kay du muy daan nar yàgg sax ndax ñu ne bu sori. non day daa kontaan rek di wax bi rek. mais lan man góor musuma duma. te dama lay wax benn affaire xam nga ndax man la man góor musuma duma. bi may ñëw fii nii. ñaari nit laa àndal. géej waay gépp ngeen toog ci ginnaaw yor ay scooter dafay affaire. sincère rek dama di profité. danañ ci wax. non defal dama defal ndànk. maa ngi wax li may wax après li may wax damaa ñor. CNG bi ñuy ñëw fii nii ci porte bi ñi mu àndal ñu ngi def ay affaire nan saaga nan wax lu leen neex loolu ci sport la bokk. waaye ñu ngi nëppe ay gàllaaj ak nag dox nii non man sama gaar bu ma ko dum li may ñàkk ñàkk fayda lépp nag dama nangu kenn mbéj ma ci lex bi ma lay tegal lex bi. lu mel ni mi ngi nag laa gis bu la jëlu seeni matuwaay. barke Serigne Bamba bu ma fi dikkaatee laa leen di wax ni keneen ku ma attaqué ku dul sama adversaire non leneen la ñuy waxaat Sénégal nag dama koy wax yéen ñëpp ngeen dégg xamuñu ku toog nag bu fayu lan xam message boobu nag dama koy lancé. Lamine Lamine mënul nekk ma xam-xam ne ci jàppale laa ci laay xëy ci laay kontu man lu dul jàmm dox ma ci. wallaay laa ci mooy ànd ak kuy yàq te samay supporters mosu ñu gis ñu yàqee laa su may ñëw nag am naa droit samay mbokk gunge ma donte xam nañ ne fii benn mbir moo benn benn nit moo fiy dugg su may jóg waaye kay waaye àdduna su bu ni war na war na leen ko signature bi dinañ ko motal mu mot sëkk mais sama diggante kii li ñu wax ni yëpp day ceeñ ci maanaam rek ay ma xëppee gàllaat wax bàyyi barke borom Touba doo ko daal yow sa gars yi nekk fi yor ay lëkkate yor ay mbuusa lu ne nga xam ne yow loolu fépp la ko mbër fépp la ko yaa ngi ci biir non da koy déglu nag bii loolu xoolal fépp yow lan ànd xam nga yow lan da koo wax mu leer làmb la ñooñu moom lañ àndal lépp lu làmb di laaj dañ koy def nan def lépp lu làmb di laaj man lépp lu ma làmb may ma tey ma protéger sama bopp. waaw Serigne Bamba léegi ñu dégg wante. bu ñu génnee waat. non non léegi de bu génnee léegi. dama gars yi sotti dara. non loolu la ñuy bañ loolu du ci am loolu du ci am loolu du ci am loolu du ci am loolu du ci am. parce que man dafa yokk cadre fair play muy ñëw di défendre ay nitam bu ñu génnaatee léegi na gars yi delluwaat li ñu delluwaat. ak Seydina Mohamed yow dama laa lijjil yow mbër ma li ngeen a ma la combat bi dana métti yow combat bi dana yow nga sans a métti li nga am si waat yi waat yi li nga si am ne takk rajo yi di wax yaa ma wax loolu képp ko moom képp eh, eh. ma du ma dem allah loolu am na solo da a ñàkk ah, da si mën a ñàkk ñaari mbir am yàlla ñu am ay teggin waaye nag li mu wax suñu waxu teew mooy suñu waxu tey xëpp gàllaaj def na wuñ ko moo xam.